comme ni ma leen koy defale nee naa leen damay xool li nga xamante ni moo leen di neex wala sax loolu ngeen bëgg di ci suñu écran ñu di leen ko eh, ndaanaan ndaanaan yoo xamante ni si soog naa Sénégal kenn dootu leen laaj teeti bokk na ci tey nag ki ma dalal muy Sadaga ko waxee dañuy wax théâtre waaye tamit léegi gis naa ko ni moom dafa viré malgré li nga xamante ni moom moo di théâtre bi mu nga tamit li nga xam ne moom moo di musique bi di fa bay waaram di fa def lu am am solo ah, borom sa Sadaga nuyu naa la bàyyi la nga nuyu mbokk internet Dakar bu si lay seetaan waaw Fatou Rassoul <laughs> yaa ngi may xool ree de. <laughs> da neex rek. waaw <laughs> macha allah. maa ngi lay fay bu baax a baax. Mhm. macha allah. Euh, di kontaan ci waa Dakar Pilis. Mhm. merci. niñ ma fekk see fii ci sama biir kër. Mhm. ah man xaw ma noo def sax ba xam fii ba xam fii laa def. maa ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad Mm-hmm. sallallahu ah, alayhi wa sallam di ñaanal sama baay ba alaaji sëriñ Sam Seck mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana di ko ñaanal bépp mbooloo mu jullit bu nekk ci biir suuf di ñaanal sama yaay yàlla may ko gudd fan ak wér di ko ñaanal yaay ñëpp eh, di nuyu yaakaar naa ni waa àdduna bi yëpp ngi may seetaan mm-hmm. sama fans yi di leen nuyu ñi nekk Sénégal ñi nekk bitim réew ñëpp maa ngi leen di nuyu ah, di déglu tamit ci say laaj di di waaw xaar say laaj quoi. alors ça am na solo tout à hmm. l'heure yaa ngi may tooñ nee nga <laughs> maa lay xool di reetaan rek mais dama am contentement ak mbir mi jàkkaarloo ak yow <laughs> waaw parce que li ngay dégager boo koy xool rek foo jaar da ngay reetaan daal <laughs> noonu la demee alors saa ñu ñu ñëw rek ci li nga xamante ni moom moo di Sadaga euh, peut-être que am na ñoo xam ne xam nañu la pour ne pas dire ñëpp xam nañu la mais am na ñoo xam ne peut-être dinañ umpale kan mooy Sadaga boo ñu doon ñëw laaj ci Sadaga lan ñu mën a wax waaw euh, Sadaga Euh, li waraloon loolu euh, scénario la biñ bindoon rek. Mhm. jox ma ma sol mbubb mi. d'accord dàgga Euh, ma tourné ko 2005. 2005 loolu euh, yàgg na fin 2006 mu génn dàgg ak dakkase. Mhm. yaakaar naa ni toj na Sénégal te ba tey mi ngi ci xolu nit ñi. Mhm. macha allah waaye kii di wax ak yow nag. Ah, kii mooy Ibrahima Seck. waaw ah, loolu moom personnage la woon mbubb la bu ma sol rek. <laughs> ok Ibrahima Seck Mar Yacine may sa biiga may sa biiga maar. may ma dëkk Marien. ci faramaare yi nga bokkoon. ah euh, Marien la pire. <laughs> d'accord waaw macha allah fa tabaarakallaahu. Mhm. tamit di nongal daara nag. Mm-hmm. Euh, dëkk Tiwaawan dëkkub maam Seydil Haaji Malick si. macha allah euh, fa tabaarakallaahu macha allah jàng fa alxuraan. Mm-hmm. jàng fa xam-xam. Mm-hmm. daara ju ñuy wax daaray Serigne Alioune Niang. ñu tegoon ma ci loxoy. Serigne Mbaye Sylla. mu jàngal ma alxuraan. macha allah fa tabaarakallaahu euh, ba ma xam sama diine xam sama lislaam. am yàlla def nag li ci des nag moom àddina moom. Euh, yàlla moom moo ko wax ci alquran faalul lima yuridu man yàlla mhm. lu ma neex laay def yàlla sunu borom bi def ma ma doon artiste comédien di mhm. bégal waa àdduna bi di loo nit ñi te li ma yàlla teg nag kontaan naa ci ndax reetaan loo nit ñi moo gën ngay jooyloo nit ñi. ah waaye lu am am solo la. macha allah d' accord nga nekk artiste comédien comme ni nga ko waxee tout euh, fan nga jànge théâtre wala da nga jékki-jékki rek mu ne don si yow nga ñëw théâtre waa man avant may théâtre man dama mbapat. Mhm. sëñ Saliou. avant may théâtre man dama mbapat macha allah fa tabaarakallaahu euh, jaar ci jaar ci simb si macha allah ànd ak ay gaynde yu bari euh, fecc ci ngénte yi 99 laa dem Nouakchott di jaayal sama yaay parfum ñu tuddee woon ma fa gun ak bann gunn ak ban waaw gunn ak ban maa ngi nuyu waa Nouakchott yëpp. d'accord parce que foofu laa nekkoon di nuyu waa Nouadhibou ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Mm-hmm. jaar ci simb si euh, bokkoon ci benn orchestre bu ñuy wax Nasal groupe. Mm-hmm. ca Nouakchott jaar naa ci Ousmane Gange. Mm-hmm. macha allah man musique laa njëkk def ko théâtre kon man su ma dee def musique. su ma dee jouer ay soirée ñu naan saa dàgg mooy soir fi ñu naan lan lay def day théâtre day comédie. da di jaaxal mais ñoom lay jaaxal mais man du ma jaaxal parce que man musique laa njëkk a def comme théâtre mhm. mais c'est normal nag parce que bi moom moo ma wane parce que théâtre bi moom laa def mu toj àdduna Sénégal gi yëpp xam ma ci théâtre mhm. waaye ni ma mënee ci théâtre bi noonu laa mënee ci musique bi te incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dina leer bëgg naa lépp lu ma def ci théâtre dinaa ko def ci musique bi bégal ñëpp mhm. wàllu musique bi dinañ ci mais léegi wax nga ka ne da nekkoon gaynde di simb euh, lan nga dugg ci simb bi waaw man euh, déggoo ma ne 99 laa dem Nouakchott. bi ma demee Nouakchott sama yaay moo ma yóbbu woon. Mhm. sama yaay muy jigéen ju am jom nag. mbay Mori Awa Kumba mm. di jaay ci marché ba. di dajj ay balu fëgg jaay di jaayaale ay parfum mm. léegi ma xool sama yaay ci naaj wi nag yërëm ko lool ma ni ko yaay comme que yow yaa ngi dajj balu fëgg jaay suñ jaayee ci suba gi ba pare ngoon gi bàyyil may jël ci parfum yi dem di dugg ci kër yi di jaay yi mm-hmm. sama yaay ni ma ah man ngaa jaay man ne ko yaay man man naa jaay kay mu ne ah yow war ngaa a jaay mhm. léegi sama yaay su musaan daaj daj bëlu fëgg jaay man damay taxaw di tàccu mhm. di tàccu rek ragal kaasa pëkkin ci kàcca ka jaggat kaasa pëkin ci kàcc xam nga rek mhm. daal di taasu foofu gars yi ñëw jënd jënd su ngoon jotee ma daal di jël samay parfum dem jaay ci sama yaay wër cinquième dem sixième dugg ci marché capital jaay samay parfum man daal benn jour laay jaay parfum ba ci yàgg rek dugg sénkam benn ruq rek. Mhm. benn gaynde tasanteeg benn gaynde buy simb. gaynde buy simb waaw daal may jàpp. Mhm. ni ma ni ma nañ dem. Mhm. ma ne ko fan laa jëm ma ne ko man damay jaay mu ma nañ dem amoo bee ma ne ko man ma leen de man damay jaay mu ma nañ dem. ma ne ma ni garaawul. après mu yóbbu ma ba ca simb sa. biñ demee ba ci simb sa. mu daal may taxaw taxawal ci digg géew bi ñëpp naan wuy sama ndey jàpp nañ borom cuuraay li xun nag bann xun nag bann lañ jàpp kërëb kërëb sangam nangam <laughs> mais gaynde gi mm-hmm. ku ñëw jënd ticket rek mm-hmm. képp ku ñëw jënd ticket rek soo ñëwee soo ma jëndal ticket rek day dagg ticket bi quoi da koy dagg waaw da koy dagg quoi saani mel ni bëggul ticket bi quoi bëggul bëggumaa bàyyi bëggulaa bàyyi nga dem d'accord man instant nun fekk na ma mën a fecc mm-hmm. ma toog ba ci yàgg rek mm. affaire bi énervé ma toog ba ci yàgg rek ni bër <laughs> fecc fa loo xamante si nii. Mm. public bi ñëpp di yuux. gaynde bi daa di kontaan daal di arrière. ñëw ba ci man daal daal ne ma taxawal ma taxaw ci géew bi gars yi tëggal ma ma daal di fecc. Mm-hmm. ma jël micro ba taasu fa. <laughs> man ñu may ma fa xaalis bu baree bari macha allah. Mm. may dem. Mm-hmm. am ku ma woon ni ma gaynde gu mag gi nee na nga xaar ko ma ne ko non damay dem nee na nga xaar ko parce que simbis si jeex na pare. fi ñu doon summee koo gaynde gi ni ma yow da ngaa a fecc. Mm-hmm. ni ma yow foo dëkk Sénégal ma ne ko man Tivaouane laa dëkk quoi. Mhm. mun ma mais yow doo ñëw fii di simb suba nga ñëw takk ma ni ko yàlla tere mun ma simb sama ma dimbali ma ngir yàlla rek soo ñëwee dinaa la jox temps ma ni ko damay tàggu sama yaay ba pare mu ma ma ni ko man maa ngi yaa may dégg noonu noonu ma daal di dem xam nga waxtaan ak sama yaay ni ko xam nga rek affaire dañ maa jàppoon ci simb si affaire mais boobu bëgguma ko woon sama wax sama yaay mhm. directement ni ko damaa war a dem simb si parce que su ma ko waxee xam naa du ma bàyyi ma daal di jaay parfum laa demee ba ngoon gi ñu wax ma heure bi ngay takk ma ñëw takk. Mhm. di commencé nag toj simb si nag. macha allah ñu naan gun ak ban gun ak ban ma am tournoi shop. Mhm. loolu yaa gën a de 99. Mhm, macha allah may dugg ci ngénte yi di ko toj di dugg ci ceet yi nit ñi di ma ki mujj gi sax parfum bi moom laa doon boole xaalis bi ñu doon ma damay ñëw rek. jël xaalis bi yëpp rek jox ko sama yaay. sama yaay ne ma ñaata ga ni ma yow yow foo jëlee xaalis bi ma ne ko yaay maa ngi toj ñoo si. <laughs> ma ne ko yaay xam nu ñu may woowee gun ak bann foofu laa débuté aar macha allah ma nekk fa ay 2003. Mhm. ma daal di ñibbi si Sénégal bi ma ñibbi senegal di ànd ak gaynde gu ñuy wax euh, Abbas Sey ànd naa ak moom ànd naa ak Pape Suga mhm. Pape Sugu ànd naa ak Yuga maa ngi leen di nuyu. Mhm. Euh, maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp ma ma jaar ci mbapat nag simb. fecc naa. way naa taasu naa. kon nga bi nga jógee Nouakchott da nga ñëw fii di continuer simb bi. damaa jógee di continuer simb si man théâtre dañ ma cee forcé. Mhm. ay mille cinq ñu doon répété samay samay rakk di répété dagg ak dakkase. Mhm. Euh, macha allah fa tabaarakallaahu ñu koy répété. ñu koy répété ma daal di ñëw euh, scénariste bi bindoon euh, askanu lawbe. Mhm. Euh, bindoon askanu law be bind làmb gi bindoon ko ci ñoom saa neex bi mu jógee ci ñoom saa neex ci la ñëw ni ma daf maa sant ci la ñëw gis ma ni kii dama koo sentir te man dama doon seetaan si rek mhm. ñu wax man leen man bëgguma théâtre de Ousmane Kane ni ma booy da ngay théâtre parce que dafa neex da neex mhm. ñu wax a wax ba mu dugg ci théâtre bi te boobu fekk na théâtre euh, don la ci man parce que sama papa Ibrahima sekk ki ñu ma tuddee sama magi papa euh, France la nekkoon doon jeu film mhm. Cheikh sekk sama rakki papa la d'accord Moussa Seck bii G théâtre ñoo bokk benn baay bu ñu jur. kon sunu kër famille aar euh, famille aar la macha allah artistes yaa nga fa. Mhm. ustaas ustaas yaa nga fa tàggkatu Seydina Mohamed yaa nga fa sunu kër lépp nga fa. macha allah ma def cassette bi macha allah dagg ak dakkase mu génn 2006 la génn daal di toj àdduna. Mhm. macha allah yàlla sunu borom bi may ma ci succès bopp ba léegi. Mhm. man bi may xew euh, TikTok xewul woon. macha allah YouTube xewul woon. Facebook xewul woon ñaari télé fi nekkoon RTS 1 mhm. moo fi nekkoon ak 2STV sama album bi muy daw mhm. bi mu njëkkee daw RTS 1 dafa mel ni mhm. Sénégal moo doon football maa ne dugal bii hmm? waaw macha allah fa tabaarakallaahu te ba tey nag maa ngi ci xolu nit ñi li xew bi mu xewee ba tey macha allah maa ngi ci tiktok ñëw may toj tiktok bi bi ma nee caba comment vas de tampi daa toj dëkk bi bi ma nee nijaay na bagage yi do bis <laughs> Pikine na bagage yi do waay waay nijaay na bagage yi do musiciens yëpp jël ko di ko way bi ma ne <laughs> waaye zaamaandaay àdduna bi ñëpp jël ko mhm. kon bokk naa ci man maa ngi ci man maa ngi fi ba tey maa ngi fi mhm. artiste bu ñëw fi may fekk fi may bàyyi waaw macha allah am na solo <laughs> am na solo franchement mhm. alors ñu gis la ki nga xamante ni moom moo di sa ki di euh, seen duyoo nekk loo xamante ni lu extraordinaire la lu sénégalais yëpp bëgg la sa diggante ak Serigne Ngagne laataa ñu dugg sax ci li nga xamante ni moom mooy duyoo bi. waaw mais sama diggante ak Serigne Ngagne euh, sama mag la. waaw. yàlla boole ñu. Mm-hmm. ki yàlla booleel moo gën ki la jamono booleel. bi ma defee bi ñu defee dàgg ak dàkk sa dañ ko invité woon ci kase bi mu ñëw. Mm. ñu ànd duyoo bi ñu bi ñu ànd mm. dëkk bi. muy cas njàqali toj ko mhm. mooy yow fay roote xanaa du àggu koog ni dëngal ko ko wooy mu naan pàcc yaa ah. moom sa lingam lingam pàccalal mhm. ñun lañ njëkk dugal ci portable bi jamono yooyu envoyé nii ci portable yi mhm. ñu liggéey liggéey bu rafet waaw li ci des nag mooy euh, yeew nag su màggee ñibbi géej mm. man saa daaga bokkuma benn turub mm. bokkuma benn label képp ku ma soxla liggéey ci kàttanu yàlla mbaaxam soo ma woowee ma ñëw ñu liggéey awma problème boobu waaw ngañ sama mag la dañoo waroon doon liggéey liggéey nañu. Mhm. li affaire yi nice na ah man it tabaarakallaahu damaa bëgg sama yëf bopp. Mhm. Ah. d'accord alors seen duo. <laughs> dina baax ngeen ma si tuuti dina baax. seen duo dafa doon loo xamante ne si Sénégal dañu ko bëgg mais dégg gi ngeen dégg yéen ñaar lan la. waa loolu xam nga euh, man déggoo laay football déggoo football naa fa dix ans. ah bon waaw man. moom dañoo bokk di liggéey su nee un ma ni deux. Mm-hmm. su nee trois. Mm-hmm. ma ni quatre. yàlla boole suñuy mbir. Mm-hmm. moom mu jaar ci ay musical jaar moom it ci sabar yi tëgg tëgg na sëñ ngañ tëgg na sabar. man it ma jaar ci musical fecc ci euh, fecc ci sabar yi ba sonn kebatu ba sonn. ñun ñaar ñu boole ñu. kon suñ ñu boolee rek macha allah day mel nii da ngay mel da ngay boole Neymar ak Messi. ci terrain. waaw lépp lu mu laaj rek dañ koy joxe ba mu ba mu ba mu mat sëkk waaw. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord alors li nga xamante ni moom moo di sa diggante ak ak ak euh, Serigne Ngagne nga ko tout à l'heure sax nga ko waxee dégguma olof bi bu baax mais li ma ci dégg daal mooy que moment bi ñu toll yaa ngi dema sa bopp ngeen di ànd yéen ñaar di liggéey euh, Sénégal yi yëpp bëgg loolu du ti takk nga ni da nga bëgg a dema sa bopp lan la da ngeen am problème comme ni ko nit ñi di waxee wala lan moo lan man ab man avant Serigne Ngagne man yàgg naa demal sama bopp mhm. man damaa gëm yàlla ba pare wóolu wóolu yàlla d'accord xam sama bopp àdduna ku wéet xam sa bopp Mm-hmm. te àdduna ku toog doo togg te yàlla sunu borom bi xalima jëmu bindoon dàmm na dootul bindaat mm. avant may ànd ak sëriñ nga gis nga fa ma jaar kon damaa yàgg xoslu xam sama bopp damaa yàgg xoslu ca quatre-vingt-dix-neuf may jaay ay parfum di jaay ay fëgg jaay mm-hmm. di jaar ci simb si di fecc avant sëriñ ngañ sëriñ ngañ 2006 la ñu ànd mm-hmm. kon man damaa yàgg man damaa yàgg man xam sama bopp man damaa yàgg valeuré sama bopp damaa yàgg xam ni man dina baax sëriñ ngañ liggéey la ñu seqoon maa moom. Mhm. su amee su bindee scénario am sentir ma ci ñu liggéey. Mhm. suñu liggéeyee après liggéey bi jeex na sama mag la. man daal ku may laaj interview rek da ngay lu tax ku may laaj interview rek chaque jour da ngay concentré wu ci sa sëriñ ngañ sëriñ ngañ. dëgg la nag Uh-huh. c'est normal quoi parce que dama leen koy baal. parce que tey jii Youssou Ndour fu mu toog tey jii def interview dinañ ni ko ana Mbaye Gueye Faye. Uh-huh. c'est normal. <laughs> mais loolu tamit mënul ñàkk. Euh, mm-hmm. ma gis ci say wax mooy kay da am problème bu sérieux te bu ngeen amee problème bu sérieux nit ñi doon leen gis gisatuñu leen dañu leen war dañu leen war a exactement quest qui se passe euh, voilà euh, bu fekkee ne da am problème bu sérieux nga teg ko sur table ñu waxtaane ko saa baalante too leen eh, da ngeen am problème. ah nit ñi ngi koy wax. waaw que ñi ngi koy wax nit ñi tooñ. ah si non non leeralal lool rek. xam nga Sénégal mm-hmm. ñoom da nga leen koy baal parce que suñu gisee ay nit ñuy ànd. Mm-hmm. seen normal gis leen kee di def lee gisa gisatuñ ca kenn ka. Mm-hmm. dañ naan dañoo am problème. dëgg la non amuñu benn problème. aar amul sentiment. dafa amoon ay scénario wam sentir ma ci. maa ngi moom ñuy liggéey. yaa may dégg. yaa ngi fii ci man wala nekkoo ci man aha damaa bëgg nga nekk ci man maa ngi moom ñuy liggéey <laughs> yàlla def mu am ay scénario am uh-huh. euh, xañ na scénario yi muy def xañ na man uh-huh. sentiruma ci man nekkuma ci muy woo ñeneen di liggéey ak ñoom uh-huh. te moom it ni mu amee ay scénario am di liggéey man noonu laa bëggee amee ma it sama yëfi bopp man it di liggéey d'accord yeew su màggee ñibbi géej man damaa bëgg ma nit di am di ñaan yàlla di am ma nit sama yëfi bopp comme moom ni mu koy amee ak keneen ni mu koy amee. d'accord que man titulaire laa man numéro 10 laa man duma toog baa ah chaque jour da ngay jouer waaw chaque jour damay jouer moo tax man la yeew su màggee ñibbi géej. dañ doon liggéey liggéey bu rafet. macha allah man bokkuma ci benn label. képp ku ma soxla man saa dàgg may dàgg senegal ku ma soxla woo ma ni ma damaa bëgg a liggéey yow ma liggéey ak moom. Mhm. amul leneen mais amuñu benn problème. Mhm. yéene naa ko jàmm mag la. Mhm. Uh-huh. solo alors euh, ana ban anecdote ngeen mës a dund yéen ñaar loo xamante ni doo ko fàtte muy lu neex ka muy lu. ci lu ma mus a wax. waaw wala ngeen dund ko rek ngeen bokk dund dara loo xamante ni xaw na kii la marqué. waaw ngañ moom macha allah fa tabaaraka la parce que euh, li ñu ànd maa moom bari na ànd nañ ay tournée Casamance dem nañ ay jululu ay ay fu ne dem nañ fa ay conk sin mm-hmm. mu gañe ay projet euh, ay programme yu bari yoo xamante si ni ànd nañ ci macha allah fa tabaarakallahu mais mus naa toog mu seede ci man loo xamante si dama ne alhamdulilahi rabbil alamin parce que nit ki soo dee ànd ak moom ay at mm-hmm. ngeen toog benn jour mu am lu mu la seedeel mm-hmm. xool ko ci yow ba seedeel la ko rek santal yàlla man du man du ma fen mm-hmm. xañ na looloo tax sax ma yeex a am xaalis man ah du ma topp kenn <laughs> man yàlla laa gëm mm-hmm. ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ni wa man mm-hmm. yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu inna allaha baaligu amrihi qad jaala allahu li kulli shay'in am na ku ni ma soo dee defati interview xool bul duggati ci yooyu ma ni ko ma ni ko dinaa dugg ci yooyu parce que man nongal daara laa man alxuraan lañ ma toqantalee man mënu ma ba pare du ma tudd alxuraan mhm, dafa am yàlla sunu borom bi mhm. moom mooy moom mooy borom lépp ko joxee sa bopp rek mu jël léppam jox la ko mhm. man man yàlla laa yaakaar man taalibe laa man su ma amee toogaayu taalibe laay toog su ma ñàkkee toogaayu taalibe laay toog mhm. ndax yàlla sunu borom bi ma jëm bind woon dàmm na dootul bindaat mhm. reer yee guddee rek waaye ñëpp ay reer reer yi ñoom ñoo guddee rek waaye incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñëpp ay reer mhm. man l'essentiel seedeel na ma loo xamante si lu rafet euh, dama cee kontaan loolu dama koy imaginer wu chaque jour dañoo mosoon a ànd ci benn oto man moom ak sama benn mag may mun a sekk ak jëkkëram Mbay Dukkure hmm. ñuy wax waxtaan ci oto bi may mun a sekk wax ci lu rafet sama diggante mu mun Ibrahima Seck leen rek moo tax mu neex ma hmm. Ibrahima xolam dafa rafet ba pare Ibrahima Seck du jëw hmm. ba pare Ibrahima Seck du fen Ibrahima am na sutura macha allah sutura si Ibrahima am mun moom a gën a neex ci moom ba Ibrahima lu nit am rek yéene yéene nag ko sëñ ngañ kon seedeel na ma ci loolu te ànd ak nit ay at mu dem ba seede la loolu loolu yaakaar naa ni loolu sant yàlla la alhamdulilahi rabbil alamin man du ma wor kenn macha allah ma jëw kenn mm-hmm. neex naa àndal mm. naqari naa àndal mm. parce que su ma la waree wax dëgg dama lay wax dëgg su ma ca paree pare naa ca mm-hmm. man nii rek laa mel. li ma wax baax na. bu <laughs> baax a baax noonu la am na solo alors sa diggante yeneen comédiens yi wala sax yeneen actrices yi muy que Dakar wala sax. Thiès musiciens yeeg yooyu wala wala wala dugg euh, non sa sa mbokku comme artiste comédiens yi laa wax. waaw sama mbokku artiste yi man aw ma ci kenn euh, problème ñoom ñëpp laa yéen a jàmm parce que man maa njëkk a fii Serigne Ngañ ak saa neex Thiès. sargal leen. Mhm. ñu naan saa dàgg jubóole na Serigne Ngañ ak saa neex. Mhm. te man su ma doon nit. koo xamante si nii damay jaxase wala nit koo xamante si mel naa ne neen kon dama naan sëriñ ngañ rek laay sargal parce que saa neex ànduma moom mais macha allah fa tabaarakallaahu euh, sargal naa leen Thiès euh, sargal leen ci benn guddi ñu ni ñu ni saa dàgg jubóole na sëriñ ngañ ak saa neex. Mhm. loolu sant yàlla ñu ci des ñëpp artiste artiste comédien yi ñëpp laa amal jàmm ñëpp laa yéene jàmm maa ngi leen maa ngi xool affaire yi mi ngi nice Mhm. macha allah fa tabaarakallah man li may seetaan théâtre sax bariwul parce que lu ci ëpp man sportif laa man football rek laa bëgg mm, d'accord <laughs> am naa solo bu baax a baax mm. mais bu ñu nee Sadaga dañuy wax neex neex bi ci saa Sadaga ñu gis que Sadaga à part li nga xamante ni moom moo di kooru Serigne Ngagne ainsi de suite duñu la gis ci production yu mag yi gis nañu fi maison de production yi fi nekk euh, Marodi mi ngi fi euh, Even Prod mi ngi fi euh, Xaar Média ñu bëri daal ñu ngi fi mais duñu la gis ci production yu mag yooyu lan mooy sa problème exactement ak yi lan la lan moo tax bokkoo ci yu mel lu tax woowuñu ma ko waaw waaw lu tax woowuñu la. waaw parce que man maa dul dem ci benn entraîneur naan ko woo ma. ah bon man yàqamti wu ma de. d'accord mi ngi baax. man maa ngi sant yàlla bu wér alhamdulilahi rabbil alamin mm. man l'essentiel def naa fi ci aaru Sénégal. Mm. ci wàllu comédie loo xamante ne amul sama benn moroom boo xamante nii defagul na ko fi. Mm. am na ñu bari ñoo xamante nii samay takk ndeer lañu. <laughs> c'est-à-dire waaw am na ñu bari ñoo xamante se nii mhm. xale yu bari yoo xamante se nii macha allah fii ci Sénégal mhm. ci man la ñuy roote am na ñu bari ñoo xamante sama couleur sama couleur lañ yor couleur mhm. te loolu sant yàlla la alhamdulilahi rabbil alamin ñooñu nag macha allah damay kontaan ñoom parce que ñu ngi koy teg ci temps di ko teg ci code man nag maa dul dem ci benn producteur naan ko jël ma man du ma dem ci benn entraîneur naan ko jël ma marchandise bu baax du làmb te doomu aadama bi ku ci nekk sa wërsëg rek ngay lekk mënoo lekk sa wërsëg lekk wërsëgu jàmbur man macha allah affaire bi dama ko téye 2006 ba tey maa ngi téye affaire bi ba tey sama tur wàccul. sa tur wàccul mais moment bi nag moo wax dëgg yàlla nag mën nañu wax ni xeewe nga de parce tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw di di di di toj mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ci téléfilm yi comme li ma la ay bete bete ay baabal yooyu noonu ñooñu ñoo fi nekk moment bi wala. gisoo lu mel na lu tax yow demoo ci ñoom interview leen ah, si dama leen interview man ah, ñëpp laay interview xaaral ma ñëw waaw <laughs> <laughs> ah, xaaral ma moom man nag yow yaa ngi yow nag yaa ngi yaa ngi dugg doog dugg waa léegi déglu ma rek <laughs> d'accord jëwal xaar rek uh-huh. yow yaa ngi doog dugg fu ma neex d'accord yow nee nga man damaa xeewi ah a jàpp waa léegi damaa xeewi léegi waa léegi damaa lay gis ci écran bi gisatuñ la lu bëri naan diw dafa xeewi loolu moom langage Sénégal la quand ko bañ vas-y waxal ñëwal <laughs> micro bi ngay def ni pour nit ñu dégg la dinaa wax yow laay xaar. <laughs> vas-y ñëw wax <laughs> bul waxaat de. lan moo tax yow nga taal sa oto wër ji saa dàgga. Mhm. parce que li nga def ci milieu bi kenn mënatu ko dindi loolu la loolu laay wër si loolu laay wër si ci yow. mais tamit il faut nga nangu xew-xew yi dafa am may ma tuuti ma ñëw. ñëwal vas-y ñëwal. soo nee un kay ma ni day neex. ñëwal waaw. lan moo tax tey jii nga. nga taal sa oto tey ji di wëri ji Sadaga parce que xam nga ni Sadaga def na fi ay œuvre yoo xamante senegal mm-hmm. dootul fayete ci àdduna te œuvre yooyu œuvre yu baax la monument la mm-hmm. ci wàllu art théâtre mm-hmm. monument la kenn mënu koo daaneel ku dul yàlla subhaanahu wa li ma def ci art benn xale defagu ko fi par force par force doole mbaam soo nekkee ci TikTok bi di nga gis image u Sadaga par force doole mbaam soo duggee ci YouTube bi dinga nga gis image Sadaga par mm. force doole mbaam soo duggee ci Facebook bi di nga gis image Sadaga parce que mm. li ma fi def du deñ xam nga lan moo am solo tubaab mm. xam nga lan la bëgg mooy ko marqué empreinte am man marqué naa sama empreinte mm-hmm. te damay faral di wax naan xew fi lay bàyyi talent xew laa wax fi lay bàyyi talent man maa ngi sant yàlla mhm. ñaari télé fi amoon RTS bi ma fi ñëwee. Mhm. dama ko toj. TikTok xew. ma fekk si ci ma fekk si leen ci ñoom ci lu xew. di wax samay affaire moo yu ndaw. Mhm. du ma ko sax sentir àdduna bi yépp di ko TikTok. di ko challenge. bi ma nee nijaay na bagaas yu doog. Eh. git na bagage si dog waay waay nijaay eh. <laughs> na bagage si dog kat kat xolal na bagage si dog eh. kiis ba gën na lépp dog uh-huh. ñeel benn Sénégal dañ ko doon TikTok dëgg na bi ma ne caba mm-hmm. ci mbetteel laa ko waxe mm-hmm. mbetteel parce que li gën yéegal mbetteel man ci laa bokk maa ni caba comment vas-tu je de tampi <laughs> Sénégal di ko TikTok mm-hmm. ivoiriens yi di ko TikTok tubaab yi di ko tiktok hmm. américains yi di ko tiktok hmm. ndax yaa ngi may dégg. bu baax. biñ ñëw Hiroshima. Nagasaki Nagasaki gis përëg gis ping Hiroshima. Nagasaki gis pëkit gis pëkit Wang Song Yung gis pëkit gis Wang Song Yung hmm. mais senegal yépp koy <laughs> tiktok te ba tey ñu ngi koy tiktok. man nee naa la man. xeewi kuñ ko wax. neel alhamdulilahi rabbil alamin laaj ma lu tax. Ah, lu tax. léppay xeew yi ba mu des alxuraan. yu coon sekk lan la fi way. bis dina ñëw. Mhm. dinaa xeewi ji. Mhm. su boobaa ñu naan amoon na fi temps. Mhm. tey ana coon sekk dem na. pourtant coon sekk dem na. waaye ay wayam. mu ngi fi. moo taxoon mu ni su boobaa ñu ne amoon na fi temps. léegi way yooyu. ku ko dégg da nga naan ndeysaan Thione Seck parce que ndey Thione Seck am na lu mu fi bàyyi xam nga lan moo am solo mooy nga nekk ci sam réew. Mhm. liggéeyoo fi lenn lu ñu lay mën a fàttali ko man liggéey naa loolu man. d'accord sant yàlla bu wér alhamdulilahi rabbil alamin mhm, mhm, man déggoo li ma la wax. man jamono ji ñu tool nii. commencé guma sax bay xeew wi. ah bon non non man commencé guma defaguma dara ci aar. parce que ñu may woo lépp may toj àdduna bi. ci yëfi jàmbur lañ may wow man yoruguma sama yëfi bopp. parce que lii nelaw ti man yeewoogul. kon li xew kay maa ngi ci. li li xew kay maa ngi fi ci TikTok bi. Hmm. maa ngi fi de. d'accord ah kon kay man maa ngi mais téléfilm yi ñëwoo ci loolu laa wax loolu laa lay expliqué. téléfilm yi maa dul dem ci benn entraîneur naan ko jël ma. d'accord am nga si droit. téléfilm yi mënuñu fee def téléfilm lu fi jëlee man li ma li ma fi def fii Sénégal la woo sa une fois wala genre ngeen ñàkk d'accord. ci prix wala problème man tooguma fii di xaar téléfilm parce que sama tànk yi du fi nekk may bank man su ma nee bërët fecc dama am xaalis su ma jëlee micro dama naan dama naan su ma kebatoo damay am xaalis su ma wayee macha allah damay am xaalis man tooguma di xaar ay téléfilm man maa ngi dem ak sama bopp di ñafeel sama bopp di mbapatal sama bopp yàlla mi ngi may suturaal ci aar bi su ma théâtreul sama tànk yi mi ngi may teral mhm. ma am loo xamante am na artiste comédien yu bari yoo xamante si mënuñu ko man maay saa dàgg men mennum saa dàgg ci senegal teg orchestre di live di way di kebatu man maa fi teg orchestre di dugg ci bois di jël ay soirée di toj dëkk bi ñëw moom bu baax a baax sax loolu dinañ ci ñëw kon man kon man damay sant yàlla <coughs> euh, maison production yooyu nga wax nag xañ na yàlla moom moo tuddagul ñu woo ma mais mi ngi baax maa ngi sant yàlla bu wér ñoom li ñuy def lépp a nice maa maa ngi xool affaire yi nice ah vraiment parce senegal moo gagné. li ñuy def mi ngi naaj parce que suñu dee dañu naan théâtre bi neex na suñu nee théâtre théâtre bi kay Sadaga man fu ma nii scénario bu daw dañ naan damay dem fenn sax ñu naan oh Sadaga fii tey soo fi nekkoon. Mhm. parce que dañoo jël suñu métier mi jox ko ñoo xamante si ni moom ñu moomuñu ko. ñan ñoo ko moomu ñu def téléfilm yi. Euh, théâtre mhm. ak téléfilm mhm. bokkul. d'accord artiste comédien ak acteur. bokkul bokkul. gars yi seen téléfilm yi ñuy def nii théâtre mooy nga taxaw ci kaw chaîne loolooy théâtre mm-hmm. sur nga dem grand théâtre taxaw sur mm-hmm. di wax di théâtre lii téléfilm la téléfilm bi yow man nga cee bokk. Mm-hmm. casting bee leen ci boole am na ñu bari ñoo xam nañu ay artisans casting bee leen ci boole. léegi nag gars yi dañoo dem ba nga xamante ne di bind. léegi affaire bi dafa am aaru business léegi dafa am. xam nga business mooy lan da ngay gis koo xam day gën ci tiktok bi rek doo artiste rek ñu woo ko dugal ko ci téléfilm bi moo tax am na téléfilm yu bari yoo xam dañuy dem ba ci digg ba am problème dañuy tëju dootuñu tijjee kooti parce bu fekkee da nga sa scénario mhm. bàyyi fi artistes yi nga xamante si ñoom ñoom moom métier mi ngay woo ñoo xamante si tey ju dañu ay artiste mën nañ lay géewal Mm-hmm. indil la casting bi nga leen waxal li waxal li waaye suñ demee ba ci digg ba su série bi tëjoo rek da ngay am problème parce que ñoom dootuñu am inspiration buñ la mën a ubbilee film bi am na film yu bari yoo xamante si commencement bi dafa neex de mm-hmm. mais day dem day dem ba ci digg ñi seen affaire baa a soof nag affaire bi day mm-hmm. seen métier la. manque de talent bi da ciy feeñ. non du question loolu sax complexe bi. complexe dafa bari. yenn saa yenn gis koo xam dañ koy jox róor boo xamante se ni moomu ko. nañ waxante dëkk. dëgg la xoolal li fi nekk ci artiste Sénégal artiste comédien téléfilm yi daw am na ñu bari ñoo xamante si tey jii gisoo leen ci. Mm. samay morom dañ leen di interview naan lu tax gisuñu la ci série bi série bii parce que dañ fee bàyyi ñi nga xamante si nii. Mm. ñoom ñoom moom métier mi di woo ñoo xamante si ni ñoom. Mm. métier mi xamuñu ci dara génn ci tele bi nag taxut a doon artiste. attention damaa bëgg yéen ñi nekk ci téléfilm yi. pour ngeen déglu ma bu baax. Mm-hmm. génn ci télé bi laa wax. Mm-hmm. taxut a doon artiste. am na ñoo xamante si ñu ni téléfilm dootul dawati. télé bi fay. Mm. caméra dëppale dootuñu mën a tee def dara. ah bon da ngay mel ni man complété. Mm-hmm. <laughs> kañ laa gëj a jouer ba tey aar mi ngi may teral. Mm-hmm. génn ci tele bi taxut a doon artiste nga gis am day génn ci télé bi rek commencé kërëb kërëb saa nga ne ñu naan ko yow artiste baa ngi nii fekk kooku du artiste kooku casting bi moo ko ci boole. daal di jàppe boppam star. bi moo ko ci boole nga gis benn waajoo xam ne day njool ñu woo ko. def ko acteur. nga gis benn xale bu jigéen boo xamante si ne day rafet ñi woo ko dugal ko ci téléfilm bi. Mm. ñooñu casting bi moo leen ci boole ñooy artistes yi. yow mi sax soo duggoon tey ji ci benn téléfilm def benn séquence rek soo génne ci ko dañu yow kii léegi artiste la Fatou Bintou léegi artiste la. déedéet génn ci télé bi taxut a doon artiste. d'accord. lu ama am solo la macha allah ay que tamit leeral gars yi nañ bàyyi complexe bi. Mm-hmm. tey woo ñi nga xamante ñoom ñoom ñoom ñoo gis nga maçon da nga koy jox yëfi maçon. téer mm-hmm. bii ñëw nga jox ko mu ñaw. kii peinture nga jox ko mu peinture. Mhm. kii karole nga jox ko mu karole. mais complexe bi da cee bari. film yu bari da ngay seetaan ba ci yàgg affaire bi day dem ba mujj gi day tëju. Mhm. tëju parce que ñi ñu woo duñu ay artistes genn wàll gi. dañuy mhm. woo artistes comédiens yi. d'accord ñuy liggéey. man waxuma kenn pour mu woo la man waxu du ma dem ba benn entraîneur naan ko woo ma maa ngi sant yàlla bu wér alhamdulilah. alors am na solo ñu ñëw rek ci ba ci li nga xamante ne moom moo di bété bété euh, série boobu nekk série boo xamante ni Sénégalais nag euh, quoi qu'on nañ ko ñu ngi koy seetaan mais tamit dafay révéler loo xamante ni di aborder sax laay wax ay thème euh, thème de société yoo xamante ni dañ koy gis souvent ci Sénégalais yi naka nga ko jàngate muy wàllu casque maanaam tey kii géer la wala kii géwél la duma ko mooy sama doom mu jur ay problème yu bëree bëree bëri noo gisee lu mel noonu waa xam nga kii géer la kii géwal la moom loolu moom euh, yàgg na Sénégal waaw xam nga kii géer la kii géwal la xam nga loolu yàgg na ci Sénégal mhm. mais loolu soo dee xool sax waxuma la amatul mais bareetul d'accord parce que léegi nongoloo xam nga dafa wayloo am solo mhm. dañu diw mii diw mii léegi mooy tànnal boppam parce que léegi xale yi léegi ki ñu bëgg rek lañuy mën a sëyal mhm. ki ñu bëgg rek la mën a sëyal moo tax hmm. ñoom macha allah seen scénario bi ñu teg bete bete bi ñu teg jàngale la quoi hmm. macha allah am na solo quoi ku ko seetaan di nga ci gis sa bopp di nga xam ne ñoom la ñuy hmm. am na quoi waaw am na macha allah fa tabaarakallah quoi xam nga vraiment di la di rafetlu tamit série bi macha allah nice na yaa ngi koy seetaan waaw dama ci dama ciy dal nag <laughs> parce que man li may seetaan théâtre bariwul man li may seetaan sport moom moo bari mais mbir su nee réel nag di nga ko yëg di nga xam ni lii àdduna bi yëpp ñu ngi koy seetaan yenn saa yi ma toog ba ci yàgg seetaan ci parce que sumbulu bàcc li sama sama sama jigéen la mm. macha allah muy mu nekk ci di ci jouer rôle bu rafet mm-hmm. euh, saa neex di sama mag moom it nekk ci di ci jouer lu rafet Mm-hmm. manjoon laay bu daaray Kocc nekk ci ay ndaanaan doo nga nekk ci série boobu. Mm-hmm. macha allah tabarkalla nice na kër gi. Mm-hmm. yëpp nice ah. waaw parce que ñoo gagné. parce que ay artistes comédiens suñu joué affaire bi réussir yow yaa réussir rek. parce que ni ñuy fonke artiste comédien yooyu noonu lañ lay fonkee. Mm-hmm. macha allah sant yàlla parce que théâtre euh, théâtre la rek. sant yàlla quoi. alors am na solo mais tamit ñu ñëw ci beneen branche boo xamante ni si dañu la ci gis léegi nga ci évoluer à part à part li nga xamante ni moom moo di théâtre bi léegi yaa ngi ci musique bi. di jouer théâtre di jouer li nga xamante ne moom moo di ay soirée ak yëpp loolu dinañu ci xuus mais dama bëgg rek nga wax ma ah, lan lan moo la poussé à ce nga dem defi defi li nga xam moom moo di musique waaw xam nga nee la man musique laa njëkk a def mhm. man musique man maa dem forcé ko di bokk ci musique mhm. man musique laa njëkk a def d'accord allah euh, damay jouer ay yenn saa yi damay jouer ay mariage mhm. sànq rek am na ku ma doon waxal koo xamante si nii dama ko war a géwal programme euh, bi muy tàkk soxna man maa ko géwal mariage am mhm. fu mu da ko war a ngénte waat man la ah, woo ni ma yaa yow laa bëgg nga indiwaat orchestre bi mhm. te ni may ni may géwee ku ma woo macha allah fa tabaarakallaahu dama lay tegal orchestre man macha allah euh, yàlla moo def loolu ci man da am sa orchestre bopp lépp waaw woo yi rek mhm. indi guitare ki indi xalam ki indi marimba ki indi batterie ndax am fi sa orchestre bopp fu ma ni yombul yaakaar naa ñi ko fi am bariwul da ngay boole daal jël guy ga def ci daxaar ga après nga dem defar rek rek def xam nga daal di kër wut sa kër kat xam nga def <laughs> ambiance xam naa li may waxal nit ki ba mu kontaan xol yi sedd mm-hmm. waaw maa ngi fii daal maa ngi fii parce que macha allah métier bi moom mm-hmm. yàlla daf maa may fii may ma fii maa ngi ci théâtre bi maa ngi ci musique bi mm-hmm. te ñaar yëpp laay boole nag d'accord macha allah est-ce que boole ñaar yëpp du andi problème non indi lu ma benn problème parce que macha allah maa ngi nii gëj naa théâtre te maa ngi ci musique bi fu ma nii li musique bee may euh, théâtre bi nag euh, image bi bi dem image boobu tey jii euh, moo may teral mhm. mais maa ngi euh, tàqamtiku ci musique bi. <laughs> d'accord <laughs> alors am na solo ñu gis li nga xamante ni moom moo di décembre bi nga nga. le 2 décembre waaw waaw le 2 bi mm. passé nga defoon benn soirée. Mm. mu neex ni ñu commencé di fecc ni ñu di dem ak a dikk mais par la suite gis ni que police dafa ñëw tas ko lu waraloon lu mel noonu nga leeralal ñu ko. waaw euh, le 2 décembre boobu ci laa doon sargal ministre Omar mhm. doon ci sargal sama benn mag Zulu Mbaye. macha allah mu def programme mu doon programme bu rëy parce que bi ma nee damay jouer soirée ñu bari dakaar xamuñu woon damay jouer ci musique hmm. ñu naan waa Sadaga lan la war a def kii day caaxaan wala lan la war a woy waaw hmm. daal di euh, def samay base comme ñëpp def samay track sànni def publicité dem ci plateau yi def affaire yi hmm. jour boobu gis a fermé la di nuyu waale siidi ndax nit ku baax la waaw di nuyu grand Pape Dioum moom it macha allah nit ku baax la saa bu ma demee ce boîte ba danaan ma kaay nga yeggalewaat sa jour ba le 28 bi incha allah le 28. Euh, le 28 juillet le 28 juillet. Mhm. defuma ko rek quoi. yendu yendu laa koy def. yendu laa koy def mu mhm. doon mhm. première partie bi comédie lay doon. après euh, orchestre bi laa koy yeggalee quoi musique laa yeggalee quoi orchestre bi laay teg def musique. teg musique waaw mais dama leen di dañ leen di comédie ba pare ba gars yi ree ba pare ma teg orchestre xaw ma nuñ ko boole yaakaar na mu doon. comédie musicale. waaw comédie musicale wala. <laughs> waaw noonu lay doon quoi waaw mhm, mhm. noonu lay doon waaw. alors lan moo waraloon police tas tas loolu nga xamante moom mooy soirée. waaw xam nga problème mu problème mu autorisation la woon rek parce que heure ba ca boppam moom moo jotoon parce que dañu leen a heure. Mhm. heure boo xamante si ni maanaam. heure boo xamante si ni maanaam minuit la yem. d'accord man nag bi ñu ñëwee waxtaan ñu jox ma fa jour xam nga yenn saa yi nga joué nag affaire bi. nga joué ba 3 heures wala ba 4 heures mais mm. xam naa damaa joué ba ay 3 heures yooyu rek gars yi ñëw heure bi jot. Mm. ñu daal di ñëw parce que nit ku nekk tamit da nga koy bàyyi ak sa liggéey. liggéeyam ko mm-hmm. parce que metti woon na trop. léegi nag loolu nag laa bëgg a dàbbali. Mm-hmm. mais yendu laa koy def dañuy def dëxin wala ñu def mbaxal. ah mbaxal mu tooy xëpp def <laughs> kaani dëbb affaire ak yooyu. Uh-huh. le 28. Euh, juillet juillet mm-hmm. di ci woo ñëpp. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinaa ko tuddee samay nit ñu bari. Mhm. macha allah dina ci ànd ak tamit sama manager. Mhm. maanaam Moustapha Mbaye euh, nga xamante si ni mhm. doon nit ku baax. Euh, ñuy ànd maak moom di liggéey. te dese nañu ay projet yu bari yoo xam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ ci liggéey. waaw maa ngi ciy woo ñëpp le 28 juillet. Euh, à part des vingt. vingt et une heures wala vingt euh, à partir de dix huit à partir de dix daal lay commencé. Mhm. première partie bi daal. Mhm. Euh, comédie lay doon après nag ma tegal leen orchestre tegal leen xalam. Mhm. daal di def mbeeraay. waaw su ko defee rek ma ñëw. siri sama xol yaa ma leen gënal woona la <laughs> gagaga ngala bul ma fi de suma laa takkee wane la. ka dadaan ka tëmbra sa gin ma naan li may mbëbët ci yow. <laughs> mooy ñaan la takk la. ba tax na maa ngi lay ñaan. bul may fiire xale bi ci ngor gee ma leen kenal woo na la. nga la bul ma fiire ma la takkee wane la. aywaay ah. <laughs> am na solo nga ngay wax ci Dakar Plus laataa ñuy tës nag tëj. waa Dakar Plus euh, maa ngi leen di nuyu parce que yéen euh, macha allah dañu leen di soxla ci lu bari. Mhm. ni ngeen ñuy soxlaa ñun noonu lañu leen di soxlaa. macha allah fa tabarakallahu parce que euh, mënuñoo dem sans yéen yéen mënoo leen dem sans ñun mm-hmm, mm-hmm. parce que am na loo xam mënu ma koo message yoo xam mënu ma koo jàllale ci wàllu scénario ci wàllu théâtre bi waaw nii laa mën a def def sama interview mm-hmm. jàllale ko senegal xam man li ma bëgg waaye daal maa ngi ñaanal ñëpp jàmm euh, euh, goro maam Cheikhou Gueye saa neex dafa génn àddina maa ngi koy jaal maam Cheikhou Gueye saa neex sama mag di ko ñaanal yàlla goroom boobu yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ci barke Seydina Mohamed man mus naa faa dem parce que ba gisanteeg moom parce que saa neex mus na ma faa invité ndogu. Mhm. ma ñëw fa waxtaan ak ñoom ñuy dem ndeysaan ñu def ñaan waxtaan ay ñaanal yàlla goroom boobu yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana képp ku nekk ci biir suuf du jullit yàlla na la yàlla yërëm xare la àjjana. di euh, di jaale tamit Modou Mbaye Modou Mbaye euh, mi daan ànd ak Sadbu mhm. moom it gis nga noonu la demee. àdduna ko matal dem mhm. maa ngi koy ñaanal moom it fa mu jëm yàlla na ko mhm. yàlla yërëm xare ko àjjana muy sama xarit mhm. bi ñu déggantee sax yàggul bi ñu déggantee yàggul dara matul sax ay un mois maa toog ba ci yàgg rek ñu woo ma ni ma sa xarit ba dem na waaw àddina moom noonu la rek euh, kenn dëkku fii moo tax nañu nañu nañu laabiralante te yéenante ay te yéenante jàmm te te xam ne àdduna bi jeex na ba pare wallaahi jeex na jeex na surtout maag sama mbokki artistes yi laay wax nañu wàcce suñu bopp mm-hmm. nañu wàcce suñu bopp ku ñëw ci yow muy lu mën a doon nga xewle wala dara su ñëwee ci yow laa biiral ko parce que Ndiaga da daan wax ndaanaan da daan da daan ñëw gane si ndaanaan ndaanaan teral ko nañu wàcce suñu bopp te xam ni ci suuf la ñu jëm de mm-hmm. nañu xam ni Michael Jackson moo ñu ëppoon succès fop te tey jii mi ngi ci biir suuf nañ wàcce suñu bopp te yéenante jàmm bu fekkee wax ji nag dafa ñagas wala wax loo xamante si ni tey jii ay fët la maa ngi lu te xam ne nit matul mhm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mhm. yàlla nañ yàlla defal jàmm mhm. ca ba mi moom Dakar plus <laughs> pilis égal mooy. Ah. yokk naa say pilis. isaal macha allah alors kontaan naa bu baax a baax ci am ak yow jotaay di la mm. kontaane di la gërëm aussi tamit ci disponibilité bi macha allah di gërëm mbokk internet yi taxawoon boobu ba léegi di ñu seetaan di gërëm Ibrahima mi nekkoon ci caméra bi Farasoul Mousseligne Sall moo leen nekkaloon ci micro bi di leen dox di daj. mais sama numéro manager bi laa bëgg a joxe. pour ku ma soxla euh, numéro bi. Mhm. numéro bi xaaral euh, waaw mm, euh, parce que. 400 wala. 477. 83 83 waaw xooluma ko. sama numéro ménageur bi 400. 477. 477. 83 83. 83 83. képp ku ma soxla sama numéro ménageur boobu ngay jot xam naa ne waa saa dàgg bi numéro ménageur am bi këru ko <laughs> damaa jàngul français waxaatal. 477. 477 yow defal ndànk tey yow jànguma. d'accord 477. 83. 83. 83 83. 477. 83 83. képp ku ma soxla soo woowee sama manager. Mhm. muy live yeeg ak lépp loo mën a soxla muy spectacle ak lépp lu mën a doon muy publicité. Mhm. soo woowee sama manager. Mhm. di nga ma jot te di nga waxtaan ak moom. incha allah xam kon baa ngi noonu. 77 477. waaw 83 83 ngeen jaar ci numéro bi. waaw jokkoo ak ménager am. waaw euh, mu tegal leen programme bi tegal leen ni muy demee rek mu ñëw tëggal leen foofu toj. ba pare le 28 nag képp ku bëgg tamit euh, ñëw ci programme bi moom it soo ko woowee incha allah nan la wax béy yi nan lay demee quoi. yendu lay doon rek. yendu bu kenn yàqal kenn. d'accord <laughs> kon ñu ngi jox dig daje ba beneen yoon incha allah merci beaucoup. ok